mais yow xam nga après Quench daf la daan. waaw nga ne Quench daan ma Assane Ndiaye ma. Assane fu ñu war a jaar ci ay mhm. mhm. maa leen ko ubbale te maa leen ko mën foofu. mais pourquoi nga ne Assane Ndiaye moom la ñoo joxe avance ñoo ko joxe biir ville. Mhm. keroog ñu ngi wàcc parce que des na deux jours. mu jox ku ne ak ci ñun. un million la ko jox. de on dafa maa ne li la fay li la fay ma ubbi lu ma fay loolu ma njëkk a mu li. ma fay man. Ah. ma ëpp lu mu fay Quench. Ah, ma kuul sama yoon nekk ci Quench quoi adversaire respect. Mhm. mu joxe un million un million. ma ñëw jàpp sama njaamuur tabaski la ko nekk da ngay jox say nit pour tabaski woo. Mhm. combat ko tabaski weesu jub nañ ci combat gi nag waajal moo des fête bi jeex na jox respect. Mhm. et eh, man daal su soxna si dama Assane Ndiaye mu koy jiiroo ci nakaar gi pour mu jox la avance Assane Ndiaye day du jox avance. ah pour da ko waaw waroon maa jox deux millions cinq cent. su ma ñëw Assane Ndiaye di leen benn trente mille wala benn ma. ah di la ko jox par dagg-dagg. waaw ma ne ko Orange li arrangé wu ma wala da ngaa bëggatul combat bi am. wala comprendre mu daal lii lan la wala dafa am mafia bu nekk ci biir. Mhm. mu ne ma noppi bis bul wax loolu affaire yooyu noonu quoi. Mhm. ma noppi garaawul. ma dem ci Abdou Ndiaye sax benn supporter étranger may wax xaalis ma dóom ci àll bi. Mhm. léegi pour combat bi ñu signé ko. foog xam nga bu ñu ko signé ba pare. Eh, eh, eh, CNG sama recensement ma ko war a jox. Mbartine moo fa dem dañu maa woo téléphone keroog ba sonn mu ne laaj parce que mënoon fu ma nekkoon dafa sori ma ne Pape Mbartine Pape si desul ci dara mbaar ko mënu maa dool tamit mu jël ma jox ko mbaar ne xam ma ban làmb lañ àndoon Côte d'Ivoire xam ma fan mu yore ko loolu te loolu def na si def na si temps de. ci xaalisam moom. jox ko mbaar parce que da ko da ko yoroloon ci benn ànd làmb ñoom ñaar côté Côte d'Ivoire ma fan la. Mhm. ma mbaar wax ma ko man Assane Ndiaye ma ko waaw. ma ne ko lii mënul ne Mbaar Assane Ndiaye des naa ci moom lu mot neuf cent et quelque wala un million et quelque. ma woo ko benn gars yi na ma la jox ne ma gars bi dama jox xaalis gars yi ma dafa bis Assane Ndiaye woo naa ko trop bu ma dugg si affaire trianam yooyu noonu. man maa woo Assane Ndiaye troisième fois ne ko Assane Ndiaye yéen Sénégal da ngeen bëgg a gis dafa topp général wala lan la mu ne ma sama yoon nekku ci. te sama xaalis ak moom jeexul. ñu demaat benn signature Bambey affaire bi jaaxal ma trop. nekk nañ fa nice moom signature daf may woo Papis ngir yàlla boo ñëwee tëjoon ma si signature bi yëngal nice ma na nga man ko wax nga njaay nga wax nga ñàkk wala sama a la man fa ma dégg ndënd moom ne ma yëngal ba mu sab saab man dugg bamba yëngal ba mu sab saab gars yi toog man ak Zarko ñoo jógewoon nii sax point côté yi la nekkoon ak yeneen ma maa ngi Zarko ma Zarko seen avance dafa jeex nga ko Zarko. <laughs> waaw ci sa seen avance dafa jeex. ci suuf de yaa ngi si yaa ngi si ñaataire <laughs> <laughs> de mais du ma intéressé seen avance dafa jeex. mu ne ma yow loolu laa ci avance. waaye laa ma ji des na deux semaines moo ci des. mu ne suñu avance jeex na bu yàgg nga laa ci avance. ok mu laaj ci bëri mu ne ko bis looy wax ni. Hmm? ñun suñu avance jeex na mu ne ko pourtant sama avance jaww ji mu ne déet kii de laa yàpp kon. sama avance suñu avance jeex na bu yàgg. Hmm. naka maroon. Mm, naka Maroon te mu nekk. Awa Maroon Awa Maroon. xam ne ñoo bokk benn quartier village. Awa Maroon sama yaay maa ngi koy nuyu mooy soxna mm, ba pare nag moo sama jabar ay cousin ay cousine lañ quoi. Mhm. man dem ba ci moom ma ne ko Awa Maroon ma ne ma ma ne ko léegi lii nag naa ko wax te dee. Mhm. a Ndiaye sama a moom jeexul mooy ma dee di topis kon su ma demee nañ ko bind. mën mhm. naa suba teel laa woo xëy Assane Ndiaye di ma woo. kan moo def li di ak sama dee ci Ndakaaru nangam nangam ma ne ko Awa Maroon na ko def maa ko wax. non def nga erreur ma ne ko ban erreur yow da nga ma bëgg a ma ne def naa erreur soxna si ana yaa toogee ba si combat ma woo ma téléphone signature lañ am Ibou Mar Diop ma boo ñëwee géew a yàq sama der nga ne Assane Ndiaye jox sa avance. boobu dara nga ma wax ma ñaan mu pour ma wax ci micro bi ne. Eh? Assane Ndiaye sa jox na ma avance te boobu soxna si joxaguma mais comme gàcce boobu tamit ci mbooloo gi. pourtant bu ma ñëwee loolu laa def de. ah googu. lay soog a jeex guddi googu nag lay soog a jeex sama ak na boobu sax jox joxagul wax. après bu lamb ji ji ba affaire yi jeexee ma ma ko jël joxee tribune bi tribune bi fekk nii. Mhm. ci ginnaaw tribune bi ko ma jeexalee xoolal genre combat yooyu. ay avance yu mbedd ay avance yu ginnaaw tribune ay avance yu biir oto. Euh. loolu fu mu am ci àdduna. Euh. ah garaawul. ma ma woo Baala kay ma ne ko Baala. Mhm. ma ne ko Assane Ndiaye lii ak lii du ndox man mu ne ma noppalekul di daanu. mu ne <laughs> la bëggee daan leen lay daan. mu ne la noppalekul di nga daan bala loolu la. ma suul sama sama bu ñu la sotee rek dañ la mhm. ma toog benn policier woo ma Mbour foog fi nekk Mbour woo ma. Mhm. Jacques waa la. ne ma yow xam nga yëg nga li ma ne ko lan la mu ne Assane di sama benn gaañ la toogaloon. ay gaana ma toogal mais dafa am sama benn gaay mu ci rax mu ne daa boo coince daan la après fekk combat bi dafa bëri mbooloo fin saison mu tooga ko làmb mhm. sëñ Jaako waxee na ko waxoon na ko mbuur waxee na ko golf boo saison ah. mu tëgalaat ko combat na dafa bëri mbooloo te ba fekk na bëreegoo fekk na ba làmb ji jotagul bëreeguñu waaw bëreeguñu mën naa na lépp mais man Papis xamoon naa ne dinaa daanu wax nañ ma ko tamit gis naa ko tamit ci Jokal laa ko gisee Jokal ba Fatick. ci gent ci gént. ok ma buub daan ma ci ginnaaw ko ci gisaako yi. sama gars maa ne lu yomb lay doon waaye fii lay jaar ak ay yomb. ñu ngi bëri bu ngan ne ngan nee ba combat bi des na 4 jours. sama mag laa woo ak sama nijaay ne leen dinaa yàq combat bi ñoom ñoo tiit bu mënatuñ dara. ngeen leen dinaa yàq combat bi. mais bis bu ko yàq lii wóorul mu ne ci yow police mu ne ko man mm-hmm. ak li yëpp ci àdduna mm-hmm. li ma ko dàq foofu li ma jàng école mm-hmm. maa a muus ko jàng ma dem mi ji li may xotti sama loxo fii damaa xotti ak lamset bi xam nga lamset dafa sew soo defee ni day yaatu man lii garaaw kii doyu ma quoi uh-huh. ma dugalaat tourné lekk xotti waat jël waaw jël ma subi taf ko uh-huh. oto baa ngi gaari ci buntu kër gi acca setewo ñëw nañ uh-huh. ma ñëw gars yi ñamal ma ko ma fay vingt cinq mille gars yi ko pikiir ma xoolal ma ko sama benn xarit Matar Jembe foto ko taf taf dugal ko ci internet bi ma dem CTO ci benn kii buy liggéeyee fee CNG mu defal ma kayit ma indi ko lamb yu yàqu na soor soor soor a koy waaye soor a koy faj <laughs> non man comprendre moo naa billaahi après. après ma toog nag ba wër parce que heure boobu damaa ko xamoon ne man jékku nañu. te boobu ko maa ko yàq de. nit wax dëgg def waaw te xam naa ne kii dafa maa jékku ba mënatuma dara. ok ma yàq ko ma yàq ko parce que damaa bugoon après rectifié waat. ok maaraay. waaw mën a gën a entraîné waat bu baax. Ah. Ah. man naa maa toogaat ba wër noonu waa CNG waat ma. Ah. CNG ne ma boo bëriwul combat gi. dañ lay àcc àdduna ak laay rax ma ne combat bi yéen ko tëgg wala Assane ko tëgg tamit. dootuma bëre ok est-ce que ñoom demuñu ba découvrir ni yow yaa kii. non buñ ko sa droit ci uh-huh. na indi naa ko CNG. Uh-huh. waaye damaa jàppoon ne lépp far lay la ko lool Assane lu mu wax. Assane ñemul wax dara Assane ñemeetuma ñemul wax dara. ok Assane temps yi may soog am instant sama xol giif na. Uh-huh. temps yi may soog a loolu di ma soog a dal mois yooyu noonu. ko defati. la wax naa ko bu baax. ndax dootu lay doon maak moom. naam ba te duñ bëre te duñ gisante ma ak moom. wax naa ko fu ne billaay walaay talaaxe am na fu mu yóbbu coince si benn maara. Uh-huh. keroog bu ma jëlee jëli sama maara yi man dama jëli samay maara ak benn oto. xeeb bi ñëpp laay yëpp. te am ñoo xam ne comme Guinée la ñuy jógee ñu Casamance ñoo ñu wax seen mbob mi ci àll bi fii maa jëlee. Uh-huh. jël oto bi sànni ko fole. dem ci maara maara boobu soo ñëwoon ci moom day say sama kaw. Uh-huh. amul mbër buy bëre Ndakaaru senegal fi xam nga maara boobu. day say sama kaw ah yow balaa nga am koom soxla rek ñëw koom am rek nga ñëw si man bu loolu nii ak nag nii te boo bëree boo daane may tëb mais bu ñëwee maara bi ne critim waxul dara ah, parce sama garab bi dama nga jëli garab googu jëlee garab bi après nga indi ko maanaam sama benn booy benn booyam ma jëli garab bi paa bi deful dara defal ma li ma defal waxul dara pare taxal fii benn affaire ci tànk bi mm. ah ma ne sa waay de sama xel jaasoo na de c'est Njaay mii c'est Njaay mii bi waxul dara dara mm. ñi jaar nañ fi mm. après nit mu ne gis na diw diw Assane Ndiaye indi na fa Quench. te nee na am na am na benn dëkk bu mu koy yóbbu tamit. ii ma su ma sama desam mbaay li ñu ma wax. du lu ma teg sama bët de kon Assane nga doon bëree. waaw. Garaaw ma noppi. combat bi jee une semaine un mois. Mara boobu gaañu. deux. ii mooy Mara bi doon ñaanal Quench. mu ne Assane Ndiaye ko fa yóbboon dégg naa de. Oh. kooku faatu xam naa ne boo jàppale nañ ci combat gi moom loolu mun na kaamel ba ñëw ma teg sama loxo. ok nga mhm. ku may def nga ma defal loo xam. kii Baari yow kenn du la ah, ah, ma laal sax waaye <laughs> koy baax nag. Ah. waaye maa bon koy bon de mm. mbaax. maa gën a baax koy baax dëgg na yàlla waaye maa gën a soxor mystiquement maa gën ko ci loolu trop ne leen Quench fu mu jaar sama combat ak moom. Mm-hmm. bu mu ko bàyyi. bu ko bàyyi rek dafa erreur. Mm-hmm. ndax dafa nekkoon fu mu jaar rek dafa rafet. Mm-hmm. am na ay sëriñ yu baax. entraînement moom macha allah. ba pare du ragal waaw xanaa boo koy wax. waaw ndaanaan la. waaw ah. Ah. mais xam nga ne kenn du bëre ak ñaar. Ah. waaw mais xaalis bi xam laay wax Ndakaaru. Hmm. ku ma antalul par exemple ma song la mënu ma laa yëngal. Hmm. kooku rek ma waaye sa avance mot sa bos mot. mot dina la faj si àll bi de dina la daan bëri yóbbu la faj ñu faj la. waaw comme ni may def mbir yi rek. mais Papis dañoo gis ne mbër moo bëree rek. <laughs> mu bëgg a dee. Eh, <laughs> voilà dama waxoon du ma ree mais jàpp leen si rek jàpp leen si ngir yàlla il faut ma ree parce que kii. Eh. kii daf yu papi sa jiw bi dégg nga ko de. ne sama laamu moytul da ngay corona. <laughs> sama combat ma ne ci papi général laa laa jëm. Mm-hmm. ñu bari dañ ne ma dañu ko waroon a teel wax parce que papis. Mm-hmm. ñoom ay question ba mais papis papis koo bëri rek. Mm-hmm. papis taa yële yaa ngi fàtte. Mm. yow bëri nga ak saa kajoor bëri nga ak Mamballa. Mamballa mhm. dégg nga ni mu waxoon. Mhm. tànk yi doon neewi. waaw ah doomu Jalaaw. kooku moytu woon nelaw. saa kajoor. tànk yi neewi. ah gars yi kat. Hmm? ah xam nga lu ñuy wax. ak hmm. ah ñu mënoo koy def. Ah. ah ba pare ñuy def hôpital. ah nu ñuy defee hôpital kon dégg naa ko bu baax saa kajoor saa mu bu nekkee xaw la xaw ma beneen bi mu dund. beneen hôpital bu mag a beneen bi. principal waaw mm-hmm. Mm-hmm. ko dama doon ay booyam fii ma koy jox ay bagages ce que loolu waxtaan ak papam tamit. Hmm? ok xaaral mun na mm-hmm. am lu ñuul. mais après sa diggante ak Sa ba nga ko déggee ñu bari na papi général bëri naa moom après lu mu def si yow ak tamit dañ la contacter. waaw dañ ma contacter nag. Hmm, Balla Gaye ak Mbaxam. Balla Gaye 2. yow avant loolu Balla Gaye da ngeen amoon relation yi waaw. Papis Général doo wutal Balla Gaye sëriñ. man. Hmm. mosuma ko wutal sëriñ. ok ñaar seen relation fu mu départ. non Balla Gaye si boppam. xam nga ne yow mënoo doon président sportif doon mbër mun a bëre. ba bëre bañ ko mun a bëre. boo gisee kuy bon xol ci làmb rek mënoo dara. sa bëri moo satul waaye boo mënee bëri dëgg bu ko see sa mënu mun rakk la ngay doon wala sa mag bu mën a bëri da nga koy faa noo def ngeen xamante ñëpp la mbir yëpp lay dara ah, ñu mën a bëri bokk oh, waaw sama relation moom bu rafet la ku gore lu ma gis sama kanam nii face mu koy defal ay moromu mbéram te duñu yëg ah loolu leer na ma de kooku ku baax ku mbir bu ñu la noonu seen neex de mhm. ñoom o oh, Lamine sax woon naa Pape Général xam nga bu ñu demee télé nanga mu ne non bu ne ñàkk turu jaamur bi xaaral ñu beneen numéro rek am um fu ñu woowee. ñu ne sa numéro bu am ko mu woo ma këram. mu guddi waaw. Mhm. ma ne ko gaalem toog. mu expliqué ma après woo maam Mballa woo Sakka Dior. maam Mballa woo Sakka Dior expliqué kat man bu ñu ko bëree ñu ba léegi nangam nangam. Mhm. après Saka Dior wax moom maam Balla wax Saka Dior def ni tànkam yi ba man ma ma ma ma nekk nii maam Balla nekk fe ma laal tànk Saka Dior bi nii fekk mu néewi gàpp ko rek moom dama naa rus tuuti. parce que tànk baa ngi néewi ñaar yëpp a ngi néewi. ba mënul dox sa yëkkati day diri tànk yi. mu maam Balla fee si suuf moo doon néewi. mooy fu muy teg nii moo doon néewi. Mhm. ñu waxtaan mu jox ma xaalis dimbale ñi. ku la jox Balla Gaye moo jox xaalis. pour ma dimbale ñooñu. parce que ma bëri ñoom pour ñu doon woon yenn affaire yi ñu dindi ko. waaw man dem tamit fu ma xam. ñëw jox ko nekk si ñoom. waaw nekkoon nag saaka joo dootu mën a bëri àdduna ak laaxira. ne ko saaka joo dootu bëri àdduna ak laaxira. li tax nga ko loolu. non fu ñu jaar moo tax wax ko loolu. waaye bu dee maam bala moom dina ñëwaat. nga ne ko saako jot dootul bëreeti àdduna ak allah. parce que dañ la ko waxoon wala yaa ko gis. ma ko waxoon. ok waaw. mais am na feebar yoo xam ne bu moom. boo paree sax boo nekkee normal sax. dootoo ñëwee dugg la ci làmb. parce que da nga ragal ne su ma duggaatee na maa dalaat làmb la rek. mais wax ko saako jot après. non dama ko wax moom. ok léegi maam Balla moom maam Balla moom naa ko Balla Gaye nokk yi moom dina ñëwaat. ok tey yéex rek waaye dina ñëwaat moom. waaw fu la ñuy yem am ba am na fi combat ma dem ba këram. Mm-hmm. Mm-hmm. ku baax nga noonu. Ah, am na combat ma dem ba këram. jàppale ko. li mm-hmm. ñu ko war doomu jala doomu jala dañoo bëri ba pare deuxième jour koor ñu dem ci àll ba mu ne ba bi da ngaa woor may ko doomu dama woor doomu nag sama ngëm yàlla bëriwul sama xol rafet nii rek mu ma doo woor may ko dama ne ma ko am dem ODK bi nga jënd lu la neex ñu dugg ODK ma jënd samay boisson ak samay kéyik ak mu féete ma ci ginnaaw maa ngi ci kanam ah mu ne Papa Sow mag waxoon na ma ko de ay Papa Sow yi ne yow doo nit de ay su ma li ma jànkool ci àdduna Papa Sow ma ne ko pourtant nag sama combat ak yow bu ñu nekkee ci géew nga jékki-jékki toog sax kii boobu noonu noonu ma ne ñun xam nañ ne am nañu la dal mu ne boobu sama tànk bay soom dara mënatu ko woon moo tax ma doon toog di dal mu ne ñun xam nañ ko de waaye xamuñu lan la mu ne Papa Sow est-ce que nit nga dem naa ba Casamance rey fa nag sacrifice nag defal naa la ko Casamance ah ma ne ko ah ma ne waaw ma ne ko nag sax yow ci gént rek ñoo nga suñuy dëkk di jiiróo ak benn gaañ jën yow ak gaañ bi yéen a ànd bu ko jàpp jën bi ci biir géej gi ma ñëw gis leen ci géej gi ngeen di kii jën bi pour jàpp ko ma dugg ci géej bi téye jën bi mooy ñu ki nga àndal ma kon parce que foofu laa dajee ak ñoom mooy nangu seen jën bi amoon naa dinaa la daan mënu ci woon dara mu ne bu nekkoon ci aala bu marqué yokk ci ma ne la baal ma yaawoon foofu saaka jo kii mu koy wax doomu Jolaaw mais man daal bu maa ngi mix sax ma jékki-jékki moo ma tey ma ne ma béy si wax dëgg dimbali ma nelaw doomu Jolaaw ma ko lu tax mu ne ma dafa mel ni ay melentaan yooyu def sama yaram gi ba bees ngir yàlla dimbali ma mu may sama cinquante mille ma lekk ko cinquante sama cinquante mille naa ko jox sama maaraay bi génération xaalis nga jox ay maaraay cinquante mille ma lekk cinquante mille ne ko jëral ndox nga def ci benn kuti raxas ci kuti bi ci biir paan bi nga songoo ko dina bàyyi <laughs> ah man toogaat ñaari fan ñetti fan saa yu waat ma ne ma lii dañul de. Ah. ma ne kon ni nga looy oto ma looy sama benn xarit bu tudd Mouhamed Rouge 35000 francs ma yóbbu ko Touba Toul sama benn maara ma ñëw maara bi téye fii ne ko ah fii nag mu ne ko oh, te lii ma ma dal siñ bi jaratul wax dindi ma ko <laughs> jar na ko tamit làmb jar jar na ko raw. mais comme par exemple di def benn affaire. Mhm. bëri nit xam nga après. Mm, làmb ba ko dal. moo tax ñu ne la am. dafa seen doom du mos a bëre ci am nga ay mara macha allah xol bu rafet nga yor. Mhm. na ko après ci làmb. Mhm. yàbbee lay dindi. jar yaa yàbbee lay dindi làmb yëfu góor la ku la dina la yëpp signature am naa yëpp day xewee signature signature wax ju rafet. signature wax ju rafet day kii làmb. wala nga am foo jógee ci àdduna par exemple tey toogoon nan dugg ci làmb di seral su ma daanee tey su ma am defet dañ ma dinaa ñàkk fayda ci mbooloo gi dinaa ñàkk fayda ci dëkk bi yëpp ndax ñoon dañ maa xamee sama waa kër ak nee yàlla baaxalee comprendre nga loolu yëpp man du mooyu ko dugg ci làmb pare bug cee nag di yolumal mënul la comme ma bàyyi benn yoon dem fi ñuy dem mm-hmm. liggéey usine ba sama usine yaay bi wala ma dem kaw toog fa waaw mais comme dugg naa ci benn ñu wax ba sonn mbay ma seere kap bi rek. waaw génnee Énergie. Rock Énergie nag wax dëgg ne yàlla sama nijaay moo fa génnee ni ma ko ma nga seen grand la te nekk fii nangam nangam dellu fa ma wax gars yi gars yi tamit kontaan ci loolu ni ma garaawul waa ñu joué loolu. kenn mënu ca ay gars lañu dañuy déggal mu gis dañuy gisante daal. par hasard. waaw. sama kër fii la toog ci Rukuba. sama jaar bu toogee pare ne ko kaay añ saa mag fekk nga na ko. mënul xëy suba te ñëwul sama kër. ba mu ba doon ba bi bëri ay grand combat. moo doon dama doon fanaan ay ay gàllaajam. Mm, parce que boobu maa ko gën a naan yenn yi. ok minuit yi ne dama ma paree dugg ci nekk oto am bi ak mu ah, waaw te mu ne borom baala. kii bébé loo. maa leen nuyu ñoom ñëpp. waaw man moom wax dëgg saa yu ma gisee moom amuñu sax xelu ay affaire yu mu béy ak moom keroog rek daje nañ benn invitation maag moom Tidiane Faye. jëm ñaajo. waaw proximité boobu ñoo doon jeexal quoi. après woo ñu fa. mais seen relation bi mu demee. man ak moom nice ma. Mor mën nañoo xoolante nii sax. Hmm. bu ñu jàkkaarloo man ko moom bu ñu jàkkaarloo bu ñu su ma nee gars yi bu def maak moom ko si dañuy roofoo maak moom. Hmm. mu teg ma teg fii ba sama mu teg sama bos wee ñuy waxtaan noonu. Moodu moom mooy waaj gi di bodd ma ne ko yaa dëgër boobu ponk li nga ne dina may jaamu mu ne ma bés mbëri amuñu fit de ak ñoo bëri ci mbëri nag fit rek <laughs> soxna si fit a neex ci nga dem écurie Manga 2. de mhm. sax xalaatoon ne Manga dina am lu fa génn. force waaw Papis. Mhm. déception am. Mhm. gisatuñ Papis général. lu waraloon loolu ak tamit sa digganteeg Manga ni meloon. Manga moom sama kooku sama gaayan la. ba pare combat am dafa neex amul tax combat ma nga neex ma nga dalay tegal combat. nga dem fu ngay dem sax ak sa xaalis ba mu jeex. sa yoo ñëwee mu defal la desars ab abalaat la dafa doon am Papis ngir yàlla entraînement am na de waa Serigne ñu doyul ma ne ko victoire rek ngay wut tëddu waaye jox ma temps rek nga xool xool ah ni ma garaawal kaa def desars non wala moom dafa neex quoi waaw doo coow la ci dara man mosuma am combat te dugguma ci reliquat te combat bi jotagul foog ma jeexal sama avance bi duggaat ci reliquat waaw. su ma amul loolu sama xel lu tranquille. waaw parce que sama combat mujjee bi. ma coince dañ maa jékko-jékko gis nga doon jékkoon nit ñi. ñam naa ci tuuti tamit. dañ laa jékko ndax dañ maa jékkoon gu garaw. gan normal. def naa six mois sama waa kër gisuñ ma. kii moom ma localisé sama bi. damaa demoon lay ji boo amee ko làmb lay jàpp ba. mun nga def trois semaines yoo entraîné. non ku si la. ki mhm. mhm. jàpp na ku si jàmbaar. ma de. Mhm. sama combat ko damay sama amoon combat dama am ay huit mara sama kër. bokkul ci àll ba may dem ci de. waaye sama kër rek dama fay teg mara. Ah. waaye façon façon trois rek a ñëw. xaalis bi matul. Oh. sa njaay moo def lii. waaye sama mara yi bu ñu wax. Eh. man a sóor mara foofu. Eh, xanaa nga mosuma warate. mais gisatuñ la fa. non parce que instant dafa kii làmb moom na ko stand by. bu nekkul làmb ji stand by nga ñëw ndax maa ngi dégg sax gars yi naan mystiquement moo tax euh, Papis. waaw non mais xam sa dem nag xam sa dem benn àll benn pël wax ma loolu. benn pël ma am na fa eh, eh, ah, <laughs> benn pël ma ko woon de xam nga dama nga du ma ko def. Ah, waaw mais écrit bi ku ne mën nga def sa morom loo xamante ne bu nga ne ko la gaañ écrit dafa métti. Ah, pël bi ne ma waaw Papis am na fooy entraîné kooku xaw ma maa ngi soo gis pour la première fois maa ngi soo gis pël boobu. ma ne ko am na fooy entraîné foofu am ay tubaab ma ne ko waaw mu ne ma moytul foofu dafa am lu la fa suulal. Mhm. billaahi wala taala ak sa mënu ko rab ma yaakaar. ci laa su mais taxul nag su ma amoon combat mhm. dama jël yenn sama écrit yi am fu may dem ak ñoom. ah waaw fii boo déwénee ñu rëy la kañ. bul jéem a sax xool ndax mun na ne wala mënul ne. bul dugg de. wóorul de. maa rus manga de man maa ko war a woo nag bu dee dëgg la rek. man maa ko war a woo. Hmm, mais naa su ma paree nii pour ñëwaat nii. Hmm. balaa dara dama dem ba ci moom. Hmm. waxtaan ak moom ba pare. dina ma tegaat ci yoon defal nii ak nii ak nii après ma dem di nuwaale jabaram. may mujjee kër ma ma ak sama jabar ànd. làmb moom gëj nañ ci waxtaan ma ak moom franchement. Papis léegi di nga nuyu jigéen. Hmm? ah waaw léegi moom dinaa nuyu moom. mais tax daawoon nuyu jigéen. Hmm? non dañ ma doon daw dañ doon naan kii bu la nuyoo rek da lay tëddee. Ah, ok. ay eh, bagage la quoi. ñu ne kii bu la maa la mystique moom lépp la am. mais man loolu mystiquement la woon comme boo nuyoo jigéen rek. non loolu am na mystique am na ci mistik oh, waaye ñoo ñoo ñoo dem. ba sama mystique la ragal lan ragaloon ci sama dëkk la jógee loolu Fajut. Fajut la jógee waaw ah déedéet non c'est que Fajut nu ma jógee ci làmb dinañ jaaxal. ak gisoo ñaari bon bon laa defoon fii. def si ay jaara. def fii benn. ci kaw benn. Uh-huh. def ay njoñ. xappi lu daal bu nga sërmay la moo nga ni jël ci ay quatorze peeru daal réew bi comme dof waaye dum mais nuy jigéen bi comme nekkul woon loo xamante euh, par exemple comme nu ma amee sëriñ ak ni ma teel la jóg ci laa bu tàkk jëppeet ok pour ñoom kii bu ñëwoon nii rek waaye yoroon nañ tamit benn soccu de ah. soccu boo xamante ne koo waxale mu ne la mu ne la waaw waaw xamoon nañ ko de wax dëgg na yàlla ok boobu fi ba léegi waaye comme ay mag lañ utiliser tuñ ko man de on sa jigéen rek dañ maa noboon. de on rek jigéen dañ maa dañ laa noboon. non man damaa saf xorom nag. góor ak jigéen yëpp. ñëpp. mosoo gis naa ko deux fois. ñu nekk Italie Sénégal gii. après hmm. boo boo fay dublu rek. Hmm. di sama bandi ñëw na. saaga yu métti boobu moo ci sama nangu say bagage. Hmm, mais bu dee jigéen ñi nag. non bu dee jigéen moom da ngay ak moom. waaye na pour wax dëgg rek te yàlla tax tamit. mënoo rëcc ñëpp. mais parfois tentation dal la ci jigéen ñi. yenn saa yi doo rëcc. ok kon ngay wax dëgg. yaa ngi woon ci xale nekkoon ci man waaye mënoo ñàkk bu ku ku yaa ngi ci woon ah, nekkul. dama góor jigéen di góor laa di. <laughs> mais Papis après nuyu jigéen bi nga dem ba arrêté ko. waaw parce sa loxo mu trois ans wala ci la yem ma toog si kii nii quoi. am benn numéro bu may laaj benn gël bi. papam rek kii papam. ay mbir la ah si mbir yooyu noonu. gëbi juróom ma ne ko nee naa ma numéro du ngay bañ. ma la jot. soxna si bu mu dawee dem. dafa dem ba ci yaayam wax ko ko man daa ma xëy suba tey ba am na koy fëgg. ma wóobale ko yaay ji ñëw nekk te yaay ji la nekk te loolu naa la jot boobu noonu. pour numéro bi rek wax na yaayam musiba. waa bis nee na dina ma jot nangam nangam te ñoom. dañuy naan sans dara sax moom sax day defal boppam lu ko neex. ok bi ñëw di wax di wax di wax ma ne ko maire kii su ma bëggoon def lii bu yàgg def naa ko ko. mënu ci dara loolu la wax yaayam. kii su ma bëggoon teel teel naa ko bu yàgg mënu ci dus la ci mënul. xoolal bu mu nekkee fii ba léegi. ma gis ko iri di ko yóbbu. faalewu ma ko ba tey ma bëgg koo faale. xanaa gis sama jabar nu mu rafetee nu mu mel respecté du te séeréer la. ne ko du ma def loolu kii sama sa doom la de. yàgg sa jabar nangam nangam ay mbokk ngay nii ak nekk nii. doom meer waa waaw dañ négocier dafa dof. mais Papis sa garaaw. négocier ah garaaw de. <laughs> mais Papis sa relation ak Yékini. na yàlla bu ñu nekkee xale dama doon dem këram. bu ñu nekkee xale doon dem këram de mu toog jóg entraînement fi toog. man ak moom dëkk nañ nii. wala dama gis ay jarul yam nag. dañ yaay sa bëriwul dakaar boo doon seetaan yaa bëri simple da nga am déedéet. Mhm. kii mënul yii foog nga faa ko. ok njool fees del jantale. Mhm. boo ngeen boo nga nekk ngeen. janta yéeg ci <laughs> jantalu ci ah, kanam kese. par exemple mbër de am na a mbër yoo xamante ne ngeen bu danañ jàpp. ah ok non loolu sama waay fu nga nekk mbër dëgg loolu dugg sa xol. Mhm. yéeg nii waaye loolu da koo jàpp. Mm-hmm. am na mbir yoo xam ne ni ngay mu jàpp leen. yéen a ngi déggante ba léegi. yekki Yékini ñu déggante Yékini daal bu ñu mujjee gisante moom nga dem beneen làmb bu am benn làmb moom bu amoon Fatick. Mm-hmm. ma am fu ma jógee ànd ak sama benn gars yi ak sama rakk bu góor Nicolas ci temps làmb jooju. damaa yëg tribune bi ñëpp di say di jafóoru ci tribune bi say say papi seen la bu ñaawaa suuf sax ñoo ngi jóge suuf di ma gëstu léegi man sama rak nag te bu ñu tribune di yëngal tribune nag jékki-jékki si yegg ni ne di bàkku rek ñoom dab ko police yaa fa am pagaay léegi may romb pour dem bàkku ak ñoom yaa nga ne seen xaalis laay wonam si lañu ko may si woon quoi benn gàmmataru saam mhm. policier di ma tee rek ma fël loxo bi policier bi waaye balaa may def cinq sept secondes policier mot nañ ma diis sama kaw. ci cour ba ñuy taxar naa see waaw ba ñu saacaale sama saacaale sama kii bi sama chaîne bi. gars yi atte atte atte après ma def nii si suuf xool xool gis benn morceau chaîne kese. ma dem rajo pour wax ci rajo bi ma rajo bi ne sa baat yi ñemuñ ko wax ci rajo bi de. ma yegg ci kaw waxtaan ak moom ci làmb la de moo tax a ñëw Dakar laa jóge sama essence bopp laa jënd indi sama oto bopp expliqué expliqué mënoon naa ko lijjantee après boobu léegi lijjanteetu ko. Hmm. ma kuul. waaye nag ku jaamu sa njaamur ci man ma jaamu sa njaamur ci yow de. Hmm? ñoom àtte nañ ma. nañ ma. mais après dama ñëw di wax ak moom teg ko loxo nii. Mhm. mu fële sama loxo bi. waaw. sama loxo bi ma ne ko nag sa làmb la. sama sées saat nañ ko. moom la woon. ah la moom la woon. ok hmm, comprendre nga. Mhm. fee loolu la wax ba muy jeex mais dara. benn la rek mën na ma ko def suba ma def ma fal ko. Mhm. Mhm. moo gën ci moo gën ci moom. Hmm? bàyyi daanuwul teel a dee. ok mënoon naa bàyyi làmb daanuwul teel a dee teel a génne àdduna. Mhm. Hmm, làmb dafa am ay réalité. naan kenn motul. day feeñ ci làmb. nul n'est parfait kenn motul. waaw fu yàlla woon na la fii maa fi ne. waaw. mënoon na ko def nag de bëre bàyyi te daanul carrière mayoon na ko ko. Mhm. waaye yàlla moo la dul may loolu ci àdduna ba pare bàyyi la ci àdduna foog mu am benn affaire booy fàttaliku. Mhm. Mhm. nit warul nangu loolu sax. mais est-ce que benn moment comme que yow musique bi xam nga ci dara. affaire yooyu Yékini ba nga ko gisee woon euh, jàpp nga ne mystique laal na ko. waaw mais Yékini ak Balla Gaye rek mystique am na fa. Yékini ak Balla Gaye mystique am na fa. ci ci nan ci nan. ci dafa feeñ ci moom. muy muy sëgg dafa à genoux. soxna si est-ce que jàpp mystique bi nga xamante di nga faju mystique faju hôpital. am faju mystique faju hôpital. mën na jàpp ba nga dee ci jàpp la ba nga woo kongu ba dee. waa dëgg Fajut Joal Fajut laa dëgg. am na ñoo xamante ne dinañu fi laa moom day am loolu sax ñuy féete fii ñuy féete fële. Mhm. ak yeneen dëkk yi mais yegg ni tam am na ñu ko def ci combat gi. Mhm. waaw sama relation ak Balla Gaye dëgg. après combat am ah, ak Yékini la. la. waaw si lañ ma woo kër ga. dama expliqué affaire maam Baara yi. ok waaye Baara Gueye nga nit am na combat seen écrit kooku yëgul ba léegi. nit am na combat écrit am. Balla Gaye nit am na combat écrit ci am mhm. mu ne ma xool ndax li gars yi di wax dëgg la. ok ndax mystique bi ñuy wax ci yow la dëgg la. mu jox ma xaalis. waaw ne ma ne ma ngir yaa damaa bëgg diw sama pune bi daan kii. waaw mag la woon na waaye tudd ay tur nag waaw. Elton moo waaw. ak booy ay ñoom Youssou Ndour ay gàkku de. écrit Balla Gaye garaaw na mbari na ay kii de ay combat de. man daal tudd ma turu kenn. Mhm. yaa ngi ko wax. Mhm. mu jox ma xaalis. keroog maa ko ne demal stade nga nga defal ma xorom sa poosu ginnaaw gi nga dem toj stade ba. ma nekkoon nag. buñ ma waxee. lii ak lii ak lii ngay def sa pune bi ci saako yi lay daanu jëm mbir bee. ci saako yi. waaw waaw te noonu la fa tëddee du rakk ji du rakk ji. Ah, ci pune ba ci saako yi. boobu kan benn mbër dama tudd tur yi kañ. Ah, <laughs> kañ benn poulain moo doon am ko mu doon bëree. waaw mu ñëw di la teste pour xool ba xam yow mystique bi ñuy wax dëgg la ci wala du ci dëgg. merci waaw. léegi Balla Gaye te moo yóbbu poulain boobu. waaw léegi Euh, poosam xorom la ci defoon. moom maa ko ne defoon xorom rek nga dem tëj wax waaw nga dem tëj stade. nga mu ne ma ndax lii woon dama ne ko bilaay bu daawoon tëj ma bàyyi àdduna. sap sap point bi. Uh-huh. neer ke fecce saako yooyu lay daanee kee. waaw mais bëgguma tudd tur. Badou fils de Balla. <laughs> bëgguma tudd tur daal. Balla Gaye fils de Balla bëre woon na mu ñëw stade. ah bas loolu question <laughs> waaye sama mbokk. Omar dinañu ko après ndax après dañu ñu ngi waajal dafa moom émission après Papis ba léegi. ci mhm. côté boobu noonu lañu ñuy ñëw. Mhm. Sa Thiès bëri na fi combat bu mag. Mhm. dama nga tudd tur. gars yi ne Papis général. da cee dugal loxoom. jëw boobu déggoon nga ko. dégg naa ko yéen a fi Papis général ñu bari nee nañ est def wóor na. Papis jël say mbër dëkk yóbbu ci Mara. Papis loolu wóor na. Ama Baldé kese la mos a yóbbu ci Mara. Ah? Ama Baldé a sa diggante ak Ama kay dina mais yow da ngay. man ak man Sa Thiès mosu ñu sekk dara saa yi damay livré. damay livré ay soy son merguez viande jambon samay suñu yaay loolu lay liggéey su ma demee dem ba seen koñ. dafa am ay client fekk mu taxaw toog nañu ci kii tailleur yi. dañuy te du mën naa sama bis ñëwaat ci làmb ji. waaye Sa Thiès mosu ñëw sa sekk sëriñ ma moom yàlla na ma suul sama ne sama baay ma yaakaar ma suul ma seek moom sa loolu xam nga lu tax loolu noonu buñ moom ñoom buñ daaw yooyu ay séeréer ñoo ko waxoon ah, pour jaase ni jaaw si tax mm-hmm. introduce bi sama fekk sama kër mag ji ku tudd Jibi Ndong mm-hmm. soxna si kooku lu ma defal ci àdduna ñaar ka ma defal Sénégal irima lamb la ma fekk nag du lamb garaaw may toj lamb ji ab biti bëgg su gañee daa may may ko xaw yoo xaw ko de ay pour ngeen faral ma faral lamb leen déedéet bu ma kenn faral ma kenn faral ma dem na ba soo ñëwee demi final lañ may métti sama six quoi garaam it téema ci loxo yóbbu ma këram ñu waxtaan sama mag dugal ma këram def naa foofu cinq ans du ma jënd daal yére du ma jënd dara entraînement lekk kooku laa njëkk millions yu bëri kooku laa ko gisee. ok sàkku xaalis kooku laa ko gisee bu subaa du la jombal. Mhm. kooku ni jaay si tala akan jibi ndong ñoo bokk benn ndëkk ñoom si tax ñoom si tax seen dëkk lañ may jàppale. dañ may tuural boog. foofu ñu naan Sangomar Jonwaar fu ñu naan Sangomar dañ may tuural. kon Sangomar nga yóbbu woon Sadio. Sadio ban mosul Sadio sekk loolu ci àdduna. ay su ma su ma loolu su bu dee am na su ma deewee yàlla ma yàlla jégal sama àdduna. te bu mu jégal suñu kër. soxna si su ma ko jàppale ma ne jàppale naa ko. kenn mu ci man dara. ku dul yàlla. fenn kenn jaaruma fenn ci àdduna su ma ko jàppale woon. dama naan jàppale naa Salif kan moo ci kan moo fay def dara ah yow yow nag maa luwee kenn luwee benn mbir luwee ma de kenn fayoo ma weer de <laughs> man kañ ku ma ku ma yëg rek laa yëg ku ma jàppale ci li ma jàppale ci léegi ku ma faalu faale ma la waaye waaye bu ma jàppale ki na jàppale ki yaay sama yaay wala sama papa <laughs> ba du ma kenn su ma jàppale saa ci jàppale naa ko kon moo ci mun dara ah soxna si nag daa wax benn affaire de làmb làmb garaaw naa ci de waaw xam naa loolu de waaye dox ci mbéy mi góor songu ma fii dootu ko defati de.